ngir jàppale ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany. Ah, waaw ñooñu ñoo ko mën a agressé waaw on attend de voir lan la joxe ba agression yi euh, feeñal lu ñu mel yaakaaruma ne dinañ ko bàyyee noonu mais yii yu ñuy regretté la ah, soxla wu ñu yegg à ce niveau ah taskatu xibaar. daf di def liggéey effectivement nii. effectivement mais xam nga ñoom dañuy jàpp peut-être que àndul ak ñoom. man jàpp naa ne lool lañ jàpp. Hmm. Euh, que Matia Niang àndul ak ñoom donc nañ ko jéem a nañ ko jéem a violenter pour que mu bañ a wone la fa am mais il faut mu wone la fa am bu dee journaliste kay da nga leen a woo yow mos ngaa gis par exemple Ousmane Sonko woote ab journaliste ñëw nga gis ku bokk ci manifestant yi laal toujours ab gendarme wala policier mooy dóor journaliste mais amul benn manifestant bu leen laal xamul tax parce que xam nañ lañ fay wone dëgg lay doon parce que ñoom booba majour euh, ña fa ñëw ñëpp Ousmane Sonko leen fa indi maintenant ñoom ñii comme xam nañ ne amuñuy nit Euh, bu ñu gisee journaliste bu taxaw def liggéeyam tam ñu ne kee ma ngay wane lu ñàkk fayda ma ngi ñàkkal fayda la ñuy def parce li ñuy def aussi amul fayda parce que Bougane représente absolument rien bu doon ñun suñu intérêt kese la Bougane kenn du ko woo mais boo waxee njombe hmm. justice dalay woo man mii bi may politique ci opposition ñëpp di ma gis ku ne xam na ne man bokk naa ñi am xam ne ñoom moom la Macky Sall gënoon la ragal parce que man man rek maa fi politicien bu ñu tiiree bal sama oto waaye jéem nañ fee tëj ñëpp man jéem nañ maa tëj ñaar yoon bàyyiwaat ma ndax pression bu fi ma bokk def muy enseignant yi ni dàmbo du tëdd ci kasa bi ñu bàyyiwaat ma bi nee ba bàyyi ma xam ne amuñu pexe ci man ñu jéem lu ne jéem ay ger ak lu ne ñu jéem ko sottiwul ñu tiire ay bal sama oto pour bëgg maa rey fii ci corniche man rek lañ ko def même Ousmane Sonko tiire wuñ koy bal man kese kott dong lañ fi tiire ay bal ci oto xam nga lu ko waral hmm. parce que man sama discours daf doon déranger sama discours li muy dérangé dérangé amuñ ci woon benn prox ndoll pour jàpp parce que man du ma saaga du wax wax ju tegginuwul du ma xotti war ma président de la république mais damay wone fay yi muy def di ko développer di ko faram-fàcce pour askan wi jot ci. loolu laa doon def. oui mais loolu la Cheikh Yérim tamit doon def. barki démb ci ko invité da cee boole ak reewande ak di sos xam nga man. ah da cee boole ak reewande ak sos. man wax ni la ñu wax premier ministre dama wax ak gouvernement teg ko ci ni mu fekkee réew mi. waaw ba noppi ne daa am ay naag li am. waaw voilà ba noppi ne daa am ay preuve am man ma wax loo xam dañ koy weddi gis nga li muy def noonu moom bu ko defoon tey génne ay éléments d'ailleurs loolu lañ ko woo dañ koo woo pour man di li mu wax man bi ma fi attaqué régime Macky Sall di yore samay preuve bi mu amee ay alal jun luubal. may taxaw di ci wax ci sama secteur man dama ni leen rapport baa ngi nii kenn woowu ma parce que rapport ARMP laa teg à l'époque bu leer nañ di teg ay rapport corps de contrôle di ci wax kenn du ma weddi yérim su ko defoon kenn du ko woo dégg ngeen yéen Ousmane Sonko ni ku ci am ay élément au contraire dañuy dimbali ku ci am ay hmm. élément yu probant yoo xam si mën nga ko teg ci table ji wax ni def na régime bi def na fi nangam mais ñun duñ duñ ko gëmee mais nag taxaw nit ñi génne ay chiffres mu am ay euh, euh, journaliste Euh, étranger yi fi nekk ay journalistes nationaux ñëpp ñëw toog le premier ministre toog ak le gouvernement ñu teg ay chiffres nga taxaw ni chiffres yooyu du dëgg. Hmm. am naa samay chiffres. Hmm. samay chiffres ngi nii li Ousmane Sonko premier ministre du dëgg. waaw lu gënoon yomb. mais non li gën a yomb non non non Papa Ousmane li gën a yomb. mais pourquoi jàpp bi non li gën a yomb mooy. nga contredire ko kooku bu doon rek Ousmane mooy mooy wax wala ku jege Ousmane kenn du ko jàpp parce que. parce que Cheikh Yérim la. waaw Cheikh Yérim représente sa voix porte. non non amul dañ koy déglu non kon ci li nga yaakaar. Cheikh Yérim ah. Seck amul benn influence sénégalais. exemple ah amoon na influence. Hmm. mais les élections présidentielles il a dit partout que Amadou Ba va gagner. ba noppi taxaw ne daa am xam-xam gars yi di ko déglu mu naan ay non Amadou Ba mooy gagner. parce que mën naa juum ci analyse. dama la du juum ci analyse Ah, ah, Cheikh Yérim Seck dañ koy dañ koy dañ koy wax loo muy wax. Ah. maanaam moom demewul koo xam day toog di analyser ci coobaray boppam maanaam buy analyser ma ngay xalaat poosam. ma poosam. maanaam ci analyse am poosam lay analyser maanaam dañ koy defloo muy def di ko waxloo muy wax. kooka nag moom Cheikh Yérim Seck. ku koy defloo laa. dama la Amadou Ba moom Amadou Ba la bëgg fal. dama la élection présidentielle taxaw na ci télé yeeg live ak lu ne mu def ko taxaw ne Amadou Ba mooy gagné. yaa may dégg. mais bi mu ko waxee Amadou Ba est-ce que mujj na gagné 34 pour cent la mujj am alors que fu ne taxaw na fa ne Amadou bay gagné loolu mu doon def nag la defe ne ci politique mën nañ ko ko may mais nag état ñëw taxaw teg ay chiffres am au plan international ñu def euh, euh, benn diagnostic ci li fi état bi fi jógee bàyyi. Hmm. def état des lieux génne ay chiffres yu leer nañ yoo xam ñin ko jiiñ ñi mun koo weddi moom Cheikh Yérim sekk mu taxaw ni chiffres yooyu yëpp dara jaaru ci yoon. xaabaabal ci sax ba dugg ci ay aspects yoo xam ne c'est des aspects sensibles yoo xam bëgguma ci dugg. Hmm. mais loolu c'est normal que justice woo ko do ay Ousmane Sonko c'est la justice qui l'appelle pour lui dire ah oui Yérim tu as des informations mais viens nous les informations c'est c'est-à-dire loolu c'est mais taxaw man am na wax yoo ma ko waxoon tey jël si ma fii ma toog malgré que ci régime bi laa bokk am na loo noonu la réew di doxee moo tax man bi may nekk Macky Sall di ko xeex musuma wax lu may jël see te ñeent gënoon la lakkal Macky Sall ci laa bokkoon dama doon taxaw di wane ay failles gouvernance su Macky Sall. di wane ay njombe yu mu fi doon def. di analyser di génne ay rapport di teg ci ji te kenn du ko teg maintenant du ma wax di saaga du ma wax di xot toujours dama daan wax président Macky Sall am naa sama benn xarit su ma daan wax dinaa ma dàmbuj bàyyil wax président Macky ma ne ko non c'est président la République mais nga ma ko nee président Macky la may wax ca suuf a gën a bon ci moom te xam na ko. mais nag du ko xotti war maam du ma saaga mais xoolal temps yi télévision yi. ñun ñu tekkiwul dara ñooy taxaw ci tele di saaga premier ministre. man gis naa benn télé boo xam si actuellement nga xam ne journaliste ba ca nekk euh, créé ab euh, télévision en ligne am yoratul dara parce que daa amoon ay convention gars yi dagg nañ convention yi. Euh, gars yi dañ ko doon may xaalis certainement mayetuñ ko régime Macky Sall jóge na fi te régime mu day jub jubal jubbanti di jël alal réew mi di ko jox kenn léegi temps yi télé mi ngi jël ay nit ñu tekkiwul dara. wala wala euh, télévision en ligne am ñuy attaquer euh, le premier ministre ak le président de la République di leen di ko sax saaga def nga ni premier ministre war ngaa mën a taxaw di toftal di di ko tudd di toftal ci moom ay saaga man mais ñu kooku bu ñu ko ci boole woon tey ñu ne xoola xoolal ñun di boole ko ci lim te mais comme tekkiwul dara man jàpp naa loolu moo tax kenn woowu ko aussi bon euh, mais joxewul ay révélation comme li Yërim def parce que moom réewante la jaay taxaw di saaga premier ministre. Euh, parce que premier ministre nga jël kàddu yu man loolu mosuma ko def Macky Sall te man leer na ma ni. Hmm. li ma yàqal Macky sàll ci nguuram ci xeex ak moom ci dëgg pour réew mi soppeeku ñu tegaat réew mi ci yeneen loxo man leer na ma ne moom munu munu koo def sunu régime moom moom. Ah. mais man mosuma saaga. mosuma def lenn loo xam ne man ku nekk daf may mun a seetaan mais te pourtant mbir mi du. du du ay saaga ci xam-xam la Cheikh Yérim Seck mosoo ko defal cadeau. on se rappelle barki Dembo Ndiaye am na yu mu waxoon nga nga xëy gont dugg ci moom sori fo dama ko laaj ñeenti ah, question la ah question mais mais question ah. xam nga tey jii question a sori ci moom waaw mais pas man question ay question la rek boo fàttali ah, ko yi wax ma laaj ma tontu la maanaam tey jii boo ma ñaa laajoon ñeenti question yooyu ma ko laaj soo ma ko laajoon man ma tontu la sans problème te xoolal. oui loolu laa wax loolu laa wax comme ni nga amee nii facilité ci loolu nga ne ñeenti question la buñ ma ko laaj ma tontu loolu laa ne est-ce que ni moo gënoon. que un Cheikh Yérim. wax li muy ma la woote. nga nga nga défier ko publiquement. waaw mais mel ni ku mel ni par exemple xaar ma wax la ku mel ni ngañ dem ba Touré gis naa publiquement mu défier ku mel ni Bougane Gueye Dany ne ko li ngay wax yëpp bu dee dëgg la ci yow man défier naa la publiquement ñu daje ci débat ma wan la li ngay wax ni wérut. est-ce que jàpp moom laa la procédé boobu noonu est-ce que jàppoo ñiy xalaat ni moo gënoon un woo un Cheikh Yérim mu ñëw ñu jàpp ko garde à vue ko mu mujj ñu tëj ko mandat de dépôt ndax lan xëy na ngoon ne gouvernement bi li mu wax ute naag li am. waaw mais mooy li ma la wax nee naa la ñun boobu moo ñu gën a. Ah. waaw par exemple ñun dans la dans dans la mouvance présidentielle. on a assez euh, d'identité remarquable yoo xam ni. ci seen xam-xam mën nañu débattre ak ak ak Yérim sans problème ñun amuñu problème boobu. man je serai très à l'aise ñoo jàngandoo même université bi retrouvailles lay doon ak man ak moom. dans mm. un plateau ñu mën a waxtaan sur toutes les questions donc am benn problème. donc man loolu moom ma gënal. mais comme ni ma la waxee ñun li ñu gënal amuñu ko Yérim amuñu intérêt ñu jàpp ko de. parce que Yérim ñu fenn yàqaluñu dara lu dul ak réewandeem la wane ci télé bi ak ak opportunisme c'est-à-dire c'est un fin euh, c'est un boo xam lépp lu muy def ci ay intérêt rek la koy def defu ko ci intere réew mi. Hmm. loolu moo tax Amadou Ba mii mu bëgg a fal def lu ne pour mu falu te faluwul mu kon ne nag gis ni régime bi fi nekk arrangé wu ko parce que moom li mu tàmm mooy collaborer avec des chefs d'État li mu tàmm mooy régime bu fi nekk mu collaborer yow loolu la xam. Il l'a fait dans beaucoup de pays africains quand il était euh, en France euh, et cetera aujourd'hui ci loolu la bëgg kon na dund te ça ne passera pas parce que Bassirou Diomaye Faye du jël alalu askan wi du ko di ko jox kenn koo xam ne liggéeyoo ko. Hmm. léegi nag loolu moo tax ñoom li leen arrangé woon mooy Amadou Ba ñëw au pouvoir parce que bu Amadou Ba ñëwoon au pouvoir ñoom journaliste yi nga xam ñoom ñoo nekk ci système bi comme ni ma leen tuddee les journalistes du système ñoom que Amadou Ba fal woon. seen i convention gën a duun Amadou Ba di leen may xaalis ñii mu leen di fayal ay sièges ñii mu leen jox ay xaalis bu ko defee seen liggéey gën a baax maintenant nag Bassirou Diomaye Faye moom du séddale alalu askan wi ñëpp bokk mu jël benn corporation di leen ko jox loolu moo tax Yérim ci catégorie journaliste yooyu la bokk xeetu journaliste yooyu la bokk kon nag ñun ñu dem di ko jàpp amuluñ benn njariñ mais nag réew dans une république le procureur de la république su gisee yow li ngay def tegoo ko fenn yaa ngi koy teg ci ak réewande yaa ngi koy teg ci délation yaa ngi koy teg ci sos di wax loo xam ne mën na yàq réew parce que bu ñu nee les chiffres yi nga moom lañ présenté du ay chiffres yu fiable mais am naa samay chiffres te yow ñan jiñ ni ñoom ñoo def euh, ces euh, ces ces fausses écritures là ñoom weddiwuñ ko wala ñi def ces euh, njomba yooyu weddiwuñ ko parce que ñun li ñu xam bëri na. Hmm. état état bu Sénégal li muy def pour tricher kenn xamu nu mu toll. est-ce que xam nga ñu bëri duñ ci wax mais gis nga même euh, euh, les les les emprunts les seize milles les seize mille milliards. yi nga xam ne moom la moom la premier ministre wax ni euh, moom lañ fekk ci dette bi. mais euh, mais mais effectivement lu ci ëpp euh, ci seize mille milliards yi d'abord surfacturation la lu ci ëpp dañ ko dañuy surfacturer ci marché yi nga xam ne moom lañ lancé mais également. lu ci ëpp kenn kenn jaarale wu ko par fi ñu ko war a jaarale parce que parce que euh, euh, état buy leb mën na lebee nu ko neex parce que comme dañ leen limité sur euh, euh, donc le plafond bi nga xam si moom moom nekk au niveau de l' ensemble des pays donc de l'UEMOA donc ñoom mën nañoo dem contourner ko contournement boobu ñuy def nag duñ ko def ci intérêt Sénégal donc loolu nag la ñu wax ni bu ñu boolee liñ fi leb te xam ko parce que dégg naa benn dof ni non loolu mënta nekk ndaxte état mënta leb te du am benn traçabilité traçabilité mais loolu waxi kasaaw kasaaw la yow ñi nga xam ne par exemple boo jëlee exemple euh, borom kër boo am day leb mais bu fekkente ne dafa yore salaire am jabaram xam ni moom salaire am trois cent cinquante mille par mois mu dem ci banque banque bi lebal ko cinq millions wala dix millions muy leb mu leb dix millions euh, admettons banque bi di ko dagg cent quatre vingt wala cent quatre vingt dix mille par mois waa léegi ji xam ni kon mën na il faut mu muñ que jëkkër ji xaalisam Euh, banque bi ñoo koy dagg mu dem tabax ci kër wala dara euh, jabar ji dana ko mën a muñal parce que loolu leb bu leer la boo xam nañ fi mu dugg mook jabaram ñu waxtaane ko ba mu xam ni lii la leb lépp leer bu ko defee lu munul bu jabar ji laajee lu munul danaan jabar ji ah li ma leb de moo tax munuma ko mais bu fekkee ne daa leb loolu ba pare dem ca boutique ba ca koñ ba leb fa cent mille dem ca benn waay bu nekk ca Sandaga mu dem leb fa euh, huit cent mille yow xam ne jabar ji yëggu ko hmm. mais jabar day toog ci ak gis ni buñ koy dagg mais moom leen ko dagg waroon na desal benn cent et quelques mille yoo xam mën nañ koo dundee mais même loolu desalatu ko bu weer dee mu ñëw ne ko man trente mille laa dese wala vingt cinq mille laa dese mais jabat dina ko yow am na loo leb lu ma yëgul effectivement loolu moo am ci état bi maanaam li ñu leb ci li ñu yëg maanaam bu doon euh, danoo leb euh, euh, fanweer dañoo ñu ñu jàpp ni loolu la fi nguur gi bàyyi parce que état day leb dégg naa ko ni état mon grand Cheikh Mbacke Ndiaye ne état mënta bañ a bañ a leb mais c'est état day leb c'est vrai état day leb mais li ñuy bañ mooy ngay leb lebu tappale leb boo xam ne fi nga koy dugal leerul hmm. lépp boo xam ne fi nga koy dugal amul njariñ réew mi lépp loo xam ne ci sa poche la jëm lépp loo xam ne lu ci ëpp ci ay surfacturation la jëm donc loolu la ñuy bañ mais bu fekkente ne lépp bu jaar yoon la régime bu fi ñëw da nga fiy fekk ay bor di ci fay li nga man ba ba ngay dem. Hmm. soo demee bàyyi fi ay bor. loolu dëgg la mais nag bor yi dafa war a raisonnable. Macky Sall li mu leb dafa ëpp par rapport ak li nit man gis nga nit xam nga ñu bëri ñoo naan Macky Sall nguuram moo gënoon a neex actuellement nii nii nii Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mais ba ba Diomaye Diakhar Faye li ñuy dund ñun Sénégal mais leb boobu Macky Sall leb te jaarul yoon moo ko àndee xam nga pour jo méngale parce que man sama yow damay bëgg a méngale.